successful. Lagacho sana chuka njogo inafanyiko hango. Aliuser jambaro jegwe ote. Jaajëf jibi maa ngi fekk Gakou 2 le professeur laa ko ci loone. Send. Namu Maa raw foofu doom nay. Fii nga mujjoon sa diggante petit. Waaw waaw waaw fii la woon. nga ñëwaat fii looy toog fii fii loo waaw fii ñëw présentation sama combat ak euh, Boy Dakar. Boy man benn. waaw ah. Boy Dakar delloo ziar wér mu doon. sant yàlla alhamdulilah. lan moo la dugal ci gàkku de. rek comme sama yeneen morom yi ñu bëree ah ñu bëree ak moom tamit waaw bu nga am carrière bu riche xam nga loolu moo tax ma dugg ci moom. lu la dugal ci Boy Dakar. ah bëre rek comme bëre yëpp. nee na laaj nga ko fu nekk yàlla dogal na am nga combat bi dootoo ko dooli ci yow xam nga ne ndax laaj naa ko wala laaju ma ko man mosuma ko laaj wax fa dëgg yàlla waaw loolu moom musul am mais làmb moo ñu boole dafa def ay épreuve am man def samay épreuve laaj naa ko ndax xam nga gàkku de nee na moom xamul ah man de wax naa ko nag fi nga jaar ak fi nga dugg déedéet ba mu xamee lu mu tax may topp di ma laaj ñaari at loolu laa ko wax mu ne mu mais naa ko gàkku de nee na yaa ko laaj ah moom mu topp fu nekk mu ma promoteur bu nekk jaar na fa promoteur bu nekk jaar na fa fu nekk fu nekk jaar na fa kon bu ma xamul lan la may laaje xam nga ne moo daan ceeli waaw xam nga ne moo daan tonnerre lamb la xam nga ne moo daan ndongolo lamb la xam nga ne moo daan petit lamb la booy ës yëpp moo leen daan reenu ñaambi la kenn xamul fu muy demee te bu soobee yàlla jour boobu noonu dinaa xam fu muy demee bu bëggee léegi nañ tasaat combat bi léegi nañ ko bàyyi waa li ngay wax <laughs> man am naa yéen combat yi may proposé dañ ko bàyyi est-ce que du day wax rek pour pour pour teel <laughs> moom kenn xamu ko man ñi may wax ay bu ma waxee bu ma ñi may wax sama combat ñu naan ma kan mooy Boy Dakar dafa bëri xamuñu ko. ndax dama koy daan. Ah, li ngay waaw. bu xeexee bu xeexee ma wàccee ko. bu bëree ma daan ko jël bu nooy. bu ñëwee taxaw téye bopp. rek moo koy may san sama idole écri euh, sama écri idole bu mu nekk. waaw loolu rek moo koy may san su yaroo ma daan ko ndànk su yarawul nag. doo ko dóor ndax Balla Gaye. du ndax Balla moom laay tëjee nag booy yi. dégg la. Boy Dakar lay tëjee. Boy Dakar ngay tëjee ci booy. waaw est xam nga ne moo daan Gros Sène. waaw. moo daan Tigo xaritu yaay. waaw xam naa kay. moo daan Anaconda. xam naa kay. moo daan Aap. waaw moo daan Modou Yacine. waaw yaa xam ñooy man xaw ma leen waaw sama idole moo tax mënu ma ko dóor mënu ma ko def dara. yaa ngi ci maa ngi ci 10 combats 10 victoires. macha nga jëm sa 11e combat. la 4 juillet incha allah. daan ñëpp ak ñi nga daan xam naa la. waaw non yow moom ñëpp xa yow yow moom yaay yaay bibliothèque bi yow moom xam nga gars yi xam nga mbër yëpp. nee na day xeex de wax na ma ko mi ngi nekk. moom moo dafa combat ñëpp dañ laa tam nga baal ma dëmm ne la da mën a bëre day xeex. non moom ñemewul xeex moom du xeex ku ne xam na ne moom. du gis ko moom du gis ko. du du moom du gis ko loolu moom moom mënul mënul mënul nax kenn si loolu ñëpp xam nañ ni tànk lay wër mënul

dégg nga dana leer la kat yaakaar maa la mën fuuf déggoo ma de dama lay may tànk dama lay may tànk nga def ko tànk laa lay may da nga bëgg tànk tànk ngi nii tànk laa lay may nga def may tànk daan la si kaw la ñuy maa <laughs> ngi woo waa Guédiawaye di woo waa Pikine di woo waa senegal gi yëpp xam nga di woo ñi ñiy jàppale gàkku yëpp xam nga gàkku de mi ngi woo ñëpp nañ si ñëpp jàpp ñëw Iba Mar Diop la nag le juillet Iba Mar Diop allah na ñëpp ñëw. voilà di woo ñëpp di woo waa Kaolack waa Kër Madiabel waa Casamance waa Bignona waa Tangori waa Waalo waa Njawar Alkaadi sëñ Baba Faye sëñ Amath Fall. kër Omar Pël kër Omar Bambara kër Omar Wolof kër Ngolo Thiamène Daga kër bàyyiwuma kenn waaw képp kuy jiitaroo boo Dakar rek woo naa la waaw woo waa NGB bi yëpp ñëw tey si